jërë ngeen jëf waa bokk gis-gis léegi ku ca nekk ak la ngay gis ñu gis ci xët mu njëkku le quotidien Abdoulaye di kenn ku bokk ci waa bokk gis-gis yéen kaay bi nañu moom léegi Abdoulaye Baldé neneen lay gisee feneen lay xoolee la tax moo di poste député bañ doon sàkku ci moom mu jël ko jëbal ko Alioune Dia Abdoulaye Baldé nee na moo lànk kandaare du ko joxe tey du ko joxe ëllëg dafay dem assemblée nationale doon député ne ñëpp ndax askan wi ñoo ko fal Alioune Dia moomee yéen kaay bi nañu Abdoulaye Baldé ni mu doxalee ak ni ñu bëgg a doxalee moom ci assemblée nationale neexu ko waaye jamono ji nee na mi ngi toog rek di xaar lu waay defu rek ci yow la ku ca nekk nam moom Abdoulaye Baldé poste député bi nga xam ne amee na ko ci assemblée nationale ndax moo nekkoon ci liste bi dañoo bëgg kon mu bàyyi poste député boobee waaye maire Ziguinchor bi di Abdoulaye Baldé nee na du ca dal tey du ca dal ëllëg assemblée nationale la jëm ñu dem assemblée nationale ak beneen journal bu fa jëm mu di observateur xëy dikk ak ñun ci ki nga xam ne moo di premier ministre bu Sénégal di pap Abdoul mbay ñenn ñi naan Abdoul mbay nee nañu dina def déclaration politique général juróom-benni fan ci weeru bés boobee la koy defee assemblée nationale kenn ci nit yi diine ya ñu fa doon sent mu di Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni borom baax baxa yéen a kaay bi nañu du ca teew la tax moo di ndombal tànk ya tekki na ko takkal ko Abdoulaye Makhtar Diop Abdoulaye Makhtar Diop ci boppam mooy dem ci assemblée nationale ngir teewal fa ki nga xamante ne ji moo di Serigne Modou Kara ndax ñoo àndoon soobandoo ci wotey législatif yi lu aju ci càmbar gi nga xam ne ñoo ngi càmbar lii di am am bu lewul alalu réew mi ñu jël làq ko biti réew ak it lu aju ci tex na ak ni ñu fi nekkee woon populaire xëy ci dikk ak ñun ñu yëfee léegi mu door ndax anam yi ñuy sélectionné maanaam tànnee cabinet yi def audit loolee door nañu ko mu des rek yëf yu ñu càmbar ko leeral ko wal fajri ne ñu yàlla bu mel ne li fi woon ndax ministre de la justice di Aminata Touré Mimi Dame justice fan yi ñu ngi ko génn mën ñu ngi ko dégg mu naan lu toll ci benn milliard ak huit cent millions yoo xamante ne ji jëlee nañ ko bitim réew Sénégal ko moomoon lijjanti nañ ko ba teg ci loxo yéen a kaay bi nañu ndekkati loolee lépp ministre bi di wax ay ngembal foog la dara du ca dëgg lan moo ci am moo di koppar yooyee ñi ñu jàpp dañu koo jëloon joxe ko ngir mbiru caution mën a amee liberté bu fekkente ne lañ leen di topp toppee amul ñu delloo leen seen xaalis mais xaalis boobee du alal ju lewul juñ teg loxo loolee lépp du ca dara conseil interministériel bi woon bërki démb jëm ci wàllu tourisme ndekete moo gënoon a tàng ay ca leen ñu tàng tàng jër la defoon yéenekaay bi di laas moo ci xëy dikk ak ñun la tax journal bi nañu ca moom mi leen dajekat ñi nga xam ne ñoo di secteur privé bi bëgguñu woon nguurug Sénégal yokku TVA bi maanaam nguur gi daf ko bëggoon a yóbbu ba ñi fare yëf ca yemul loolee ndax kii di Racine Sy ak i ñoñam dañoo bëgg lii di fonds promotion touristique ñu mën di càmbar xool la ñuy dugal ak la ñuy génnee loolee bokk na ci li nga xamante ne ji moo indi woon coow yaa ma nekk maane la ca boobule conseil interministériel ñu jagle leen ko wàllu tourisme yéenekaay bi xëy dikk ak ñun ci mu njëkk ci portaleb Youssou Ndour jëwrin gi amee culture ak tourisme moom Youssou Ndour moomee mu ngi ci xët mu njëkk observateur yéenekaay bi nañu démb doon ngénte doomam xam ngeen doom ji nu mu tudd jàpp leen bind leen doomi Youssou nduur ji mi ngi tudd Ibrahima Nelson Mandela nduur Mariam fay Sall ci Walfadjri Grand Place la ko fa yóbbu yéen bi kaay bi suukaru koor ga mu jox imaam yi géejawaay dootuñu ko fàtte bu mukk nee na daf leen a jox jox ba imaam yi doyal moom Marème fay jabari Macky Sall njiitu réew mi moo wane boppam ci noonee wàllu tàgga yaram li ca ñëpp di waxtaane muy lambo diggante Zos ak Boy Niang numéro 2 la ca xewoon ak jàmm ji ca dellu siwaat yéenekaay yu bëri xëy nañu ci dellu siwaat laas ne ñu kii di sos tey ji dana dem ca CNG ba commission disciplinaire ba ak règlement ba déglu ko bu subaa Boy Niang moom ca lay dem sunu lamb ne ko xanaa loolu yaa ko yëg am moo di kii di Zos dem na fa naka démb Boy Niang tey ji bu xëyee mook Baye Niang maanaam baayam danañu ànd dem ca CNG ba ñu lijjanti seen ay mbir seen ba lu mu jëlagum ciy dogal tukkee ci loolee moo di face to face bi des koy ajandi maanaam janoo doot omati eh, ci mbër yi ndax bokk na ci jur fitna yéen bi di wal faji sport xëy ci dikk ak ñun moo di loole buñ ko bàyyee ana ñan ñoo cey gën a ñàkk ak lan lay jural promoteur ak sponsor yi journal bi def ci gëstu bu yaa ku ca nekk mu jël kàddu gi jox la yéen a kaay bi yamu ca ndax nee na face to face yooyee dooree ko ci diggante Balla Gaye 2 ak Yékini ba ci Zos ak Boy Niang 2 bari na lu mu yàqal li nga xam ne moo di làmb ji ñi yàq diine dëgg Pape Samba jox ma yéen bi di enquête soxla ma xët mu njëkk mi wàccal téye ko foofu lii ca Maroc la xewee surnaal bi nañu jàpp leen lu doy waat loo xam ne kuñ ko nettali woon doo ko gëm fukki kilo yi cocaïne la ñu jël nëbbu ko ciy kaamil alxuraanul karim astafirullah jërë ngeen